C'est un peu bizarre et c'est un peu particulier. Donc on était à la 74e position. le premier contrôle on avait validé plus de 30 000 parrains On a régularisé 18 000 Et plus de 10 000 c'était non identifié sur le fichier électoral donc par erreur de saisie genre les les sur les 18 000 on a après trois jours après on nous a appelé à régulariser ñu indi 18 401 parrains pour la régularisation Nous, avons dit 18 401 parrains deux jours après, on est convoqué pour le contrôle technique. contrôle technique, on a constaté des, des, des, anomalies. Google sur Le contrôle a été fait. Nous sommes 18 401, on avait besoin de 13 792 par an pour valider. validés. sur les 13 792, vous avez réussi à valider moins de 10 000 bon li nit ñi xamul ci parrainage bi mooy bu ñu la defaree contrôle ba pare dañ lay jox sa clé nga dem dañ ci def rapport bi bi ñu jëlee suñu clé dem au niveau du siège ñu dugal ko pour xool le rapport où se trouvent les erreurs on a constaté sur plus de 1000 des des six parrains yoo xam ne ça a été altéré da ngay gis benn forme d'encodage sur plus de sur plus de 1000 parrains ay A yokku ci bon on a demandé à notre informaticien mu ubbi fichier bi nga xam ne ñun moom lañ déposé auprès du conseil constitutionnel bimko à notre grande surprise on a vu que li déposée déposé déposée déposé ak li nga xamni mom lañ rapport une très grande différence une différence de 6451 parrains qui ont été altérés 6451 parrains yo xamné ñun jox leen ko mais on a vu une très grande différence ci traitement bi ay A accent circonflexe sur plus de 1000 parrains et plus de 4000 autres parrains yo xamné date d'expiration bi altération bi ak dysfonctionnement bi machine conseil constitutionnel bi am daf ko daf perturber daf koy def une version anglaise boo defee 12 10 2027 date d'expiration machine conseil bi dafa am virus wala mu doon dysfonctionnement wala mu doon problème paramétrage da koy def 12 10 2027 mais li ci doy waar mooy boo joxee benn date d'expiration boo xam ne 14 10 2027 la logiciel le conseil il est delloo ko comme ni mu def yële def ko 10 14 du ko def parce que xam na ni datu 10 14 amul parce que 14e mois amul donc dysfonctionnement yooyu le raison pour laquelle nous on a décidé de déposer un recours avec d'autres candidats qui ont décidé de nous accompagner gis nañ cas yu bëri hein, mais notre cas c'est un cas très particulier parce que nous ñu yóndee cas bi yëpp bi ñu photo page yi rapport bi ko yenn candidats ils ont été très surpris d'ailleurs depuis lors candidats yu bëri dañu bàyyi seen cas bopp nous suñu cas moo exemple bi gën bi gën bi bi dramatique ba ñu amee numéro bi ma numéro numéro informaticien conseil constitutionnel bi ba yóndee ko capture bizarrement yóndee ko ko mais li ma tontu c'est quoi ça parce qu'ils étaient tellement étonnés de voir nombre de parrains yu toll nii moom altération ak dysfonctionnement donc on va déposer un recours avec un document très solide pour xam ne dañ ciy joindre les toutes les informations yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jox ci rapport pour nous faire une une nouvelle contrôle de notre situation on a aujourd'hui taille un de recours bi tous les éléments techniques avec nos informaticiens et nos techniciens demain dinañ ko déposer auprès du conseil constitutionnel avec d'autres candidats qui doivent nous accompagner pour déposer le recours. mais mais euh, informaticien conseil constitutionnel c'est quoi ça si si mu ngi woon ci contrôle bi. pourquoi il ne l'a pas relevé. bon ñun suñu informaticien daf ko relevé. bi mu ne moom con informaticien conseil constitutionnel bi laa wax. non informaticien conseil constitutionnel il travaille sur commande du président du conseil constitutionnel. parce que kooku mooy joxe ordre yi. parce que bu leen fàttali c'est une commission commission bi c'est composé de 21 membres ñoom ñoo l'élection. élection yi. commission bi informaticien bi moom c'est un agent dañ ko jël li ñu gën a doy waar nag ci processus électoral bi dafa am le 24 novembre bi mujj dafa am benn décision bu conseil constitutionnel bi jël mu informer sénégalais yi na leen gis nga élection yi ñu ñëw dafa am benn logiciel boo xam ne conseil constitutionnel daf ko développer des informaticiens du conseil l'ont développé pour le contrôle du parrainage mais logiciel boobu xanaa war na am tur on a un bon système fonctionner bon type de logiciel qui travaille, mais on a juste reçu un communiqué comme ça le 24 novembre pour que le conseil constitutionnel les informaticiens du conseil ont développé un logiciel qui de parrainage c'est un problème au niveau de l'information Si nous, nous, dossier mais attends le gars il a dit non non non pas question c'est le président du conseil constitutionnel Badio Camara bi nga le président président commission bi ba le président président conseil constitutionnel suspend suspendre travaux travail, il faut tirer le rapport mais c'est fini il a même appelé le gendarme pour évacuer la salle voilà. Hum. Euh, mais pour autant est-ce que y a conformité entre l'Indien qui est clé et la nga logiciel bi si si parce que ñoom ñoo ko ñoom ñooy def paramétrage bi ñun boo indee sa clé tey pour traitement bi ñoom dañ koy dugal laaj la ndax lii nga leen jox mais problème bi mooy dañuy jëlee données yi ci clé bi transférer ko ci ordinateur bi je pense que c'est au niveau du transfert bi ñuy transférer données yi ci clé bi jëlee ko ci ordinateur bi foofu la dysfonctionnement am parce que il faut rappeler aussi parce que ñun ñoo ñun ñoo ñoo nekkoon 74e position jomaay mhm. Faye moo nekkoon 73e position mam Boye Diao moo jiitu Diomaye mais après bi mam Boye Diao jàllee tok nañ benn 30 minutes bo xamné kenn mënul won jall dañ toogaat parce que dafa amoon ay dysfonctionnement sen machine je sais pas virus la je sais pas problème lan la ñu nekk diko régler. biñ ko régler ba paré 20 minutes 30 minutes ñu régler ko wo Amadou Ba le mandataire de jomay fay mu ñew bi mu ñewé mom contrôle bi ça a pris beaucoup de temps mais bi kooku ñewé ba ñu ñewat mom sax ay données ñu moom Diomaye ak données Mame Boye Diao dem nañ ba am ay altération dañ dugalante nous nekk fan ak saa pris presque 30 minutes pour nous départager données yi yooyu yëpp day wane ay dysfonctionnement yoo xam ne ci parrainage bi et ñun dinañ déposer recours demain pour ñu pour pour pour ñu suñu dossier quoi au niveau du conseil constitutionnel. Euh, lan la loi bi prévoir ci délai yi seen recours beeg euh, processus bi nga xam ne mi continuer. processus mu ngi continuer mais recours bi on a 48 heures on a tey de 8 heures à 17 heures pour déposer recours on a demain de 8h à 17h pour déposer recours. Parce que le conseil, il a le communiqué la décision du 12 novembre du 12 du 12 janvier il de dafa insister le recours ce que le conseil n'a jamais fait a deux phrases il a rappelé que les candidats ont droit à un recours Nous avons droit à un recours nous avons droit à un may dinañ leen wax ñu traité waat suñu dossier parrainage parce que nous génnaguñ ci processus bi parce que tey li tax conseil ubbi benn buntu ñaari fan pour ñu déposer un recours c'est parce que nous sommes nañ ni am nañ ñoo xam un seen dossier ni nous ko traité baaxul que am droit dem ak li dul yoon par contre c'est le même conseil bi nga xam ne mooy traité recours président conseil bi traité recours yi moo ne président mm. commission bi donc tey dafa am ay ay ay yoo xam dafa am dafa parce que tey commission bi traité sa candidature ne jàlloo nga jëlaat même candidature bi yóbbu beaucoup ci conseil constitutionnel pour déposer réclamation sax la ñuy wax c'est le même ñi nekkoon ci commission bi président commission bi moo nekkat président conseil constitutionnel bi war a traité bi war a traité recours bi donc yooyu ay incohérence la yoo xam ne gis nañ ko processus bi yoo xam ne beneen il faut suñu acteur politique yi liggéey ci pour indi ay réformes yu extraordinaire parce que au Bénin tey boo demee la commission qui gère les candidatures conseil constitutionnel bokku ci c'est une commission composée de magistrats, de journalistes, des, représentants des partis politiques, de la direction des élections, de la société civile. Nous traitons candidature. Si nous traitons candidature, nous avons un recours, nous avons la réclamation, nous avons auprès du Conseil constitutionnel, nous avons dernier recours. Mais là, conseil constitutionnel les sept sages sont membres de la commission bi gérer candidature et nous allons recevoir un recours mais nous li ñu war yëpp dinañ ko def demain déposer auprès du conseil. après mais au même moment aussi il faudra reconnaître que la commission Bobo, ña nga euh, société civile. ña nga mhm. Sénat ña nga ca. commission bi Sénat mu ngi. parti yoo nga aussi moom euh, euh, déposer candidature. non non non parti bi. déposer non nekul ci commission bi. non mais mais mais day tew ah mais bien sûr le le mhm. mandataire du parti day assister ci ci ci contrôle technique bi mais les membres yi nga xam ñoo nek ci commission bi loolu les représentants des partis politiques nekkuñu si am na journaliste am les membres de la société civile am na Sénat am na DGE am na ministère de l'intérieur am les les les organisations de supervision des élections am les membres de la du conseil constitutionnel mais tay ci commission bobu amul représentant des partis politiques te pour yëpp nañ ko partis politiques qui di dans cette commission parce que commission bi bo xolé euh, mode de fonctionnement am les partis politiques dañ leen di informer rek li ñu gum durant tout le processus depuis le début du parrainage yep dañoo informer parti politique yi dañ leen di informer ne lii la def def à telle date à telle date à telle date alors que affaire yi warul parce que parti politique yi ñooy acteurs yi il faut ñu leen di impliquer dans le fonctionnement dans le déroulement du processus électoral mais tey mënoo ñëw une commission boo xam ne xamoo nu mu bindoo ñoom ñoo ko teg commission bi contrôler sa parrainage contrôler sa candidature nga nar déposer recours auprès des mêmes membres de cette même commission loolu c'est des incohérences bu ma la dégloo bu baax yéen maanaam béy wéy na mbuus ay formalité rek ngeen di def mais da ngeen jàpp na xëy na euh, seen recours du am du am euh, du am suite. ah non ñun suñu recours dañ ci am yaakaar trop à 100 pour cent. Ah, mais noo ci mën yaakaar nga naan la même commission wa nga xamante ne conseil constitutionnel moo ca moo moo ca nekk nga koy déposer ci conseil constitutionnel boobu nga xamante ne rendre na déjà une décision. non xam nga ñun suñu cas c'est un cas isolé c'est un cas à part bokul ak yenen kay dama deglu acteurs yep ñi nga dañuy def réclamation auprès du conseil constitutionnel concernant le parrainage un cas c'est des cas un cas da ngay gis ñu jël ben cas plus que sur 58975 huit parrains ne gis nañ ni man dama sama rak daf ma parrainé parrainé un candidat ki ne la man sama tour niñ ko bindé baxul man candidat la ñu ne ma nekk si fichier bi mais ñun c'est 6461 six parrains qui ont été altérés loolu buñ ñu ko delloowee mais dafa yomb parce que dañ leen di jox rapport ñu dañ leen jox rapport bi nga xam ne ñoom ñoo ñu ko delloo ñu gis si encodage yi si nekk ak erreur yi si nekk jox leen rapport bi nga xam ne ñun moom lañ déposé bi ñuy déposé parce que ñoom ñu ngeeg duplicata bi c'est pas compliqué il suffit juste de teg ñaari dossiers yi bi nga xam ne moom lañ leen jox ak ñoom biñ delloo pour faire les comparaisons mais c'est pas aussi compliqué maanaam kon fi ñu jàpp ni seen xeex bi de dafa mel ni sax ku nekk da ngay gën a sa mbiru bopp donte ah. sax yeen ngeen ci nga recours yi euh, nan nañu déposer des recours individuels. ah non mais recours individuels ku nek ak sa cas c'est des cas isolés cas parce que candidature boy c'est 93 candidatures il y a 67 dossiers qui ont été traités sur les 67 dossiers il y a 21 qui ont eu des validations il y a presque 40 42 yo été 45 qui ont été... mais 45 qui ku été... ak ni problème est le am parce que man dama jàpp ni est ce sa le conseil constitutionnel quelqu'un qui prépare une candidature depuis plus de deux ans trois ans ñëw indi clé conseil constitutionnel ñu la modifier clé bi parce que fonction ni la DG respecté au mais il nañ la minutes nga corriger ko mais c'est pas compliqué une personne qui prépare une candidature pendant deux ans pendant 36 mois donc avec ses équipes le ben siège di cotiser di participer a 30 millions Dembouti wuti parrainage 58 000 mille mu ñëw nga ne ko da nga modifier fichier des bi motax do candidat mais loolu c'est du jamais vu may ko temps 10 minutes mu corriger affaire yi mu jeex mais ñun encodage bi bi ñu gisee affaire yi dugal ko ci réseaux sociaux mais on a reçu des appels des milliers d'informaticiens liñ lay wax dafa yomb mais lii c'est pas compliqué à gérer lii c'est du truc 2 minutes ñu may leen ngeen dindi encodage yëpp ñoom sax mën nañ ko dindi parce que transfert données yi ñuy jëlee ci clé bi di ko def ci machine bi fa la bi mais loolu l'informaticien du conseil constitutionnel peut régler ça en moins d'une minute c'est pas compliqué mais tey rigueur yooyu ñuy teg ci affaire yi yoon parce que tey lu mel ni candidature à une élection présidentielle nit ki sacrifice yi mu laaj effort yi mu laaj sur le plan financier sur le plan logistique nga teg coono yooyu yëpp sa bopp teg ko say àndandoo teg ko ñi ngay liggéeyal teg ko sa njaboot ñu dem ba fin bi ñu ne non sa clé kenn mënu ko lire moo tax ñu rejeter sa candidature mais loolu c'est très injuste. Mm-hmm. da ngeen a jàpp ni euh, euh, euh, labaj la daal ci ci tënk. non pas yegg yeggagu leen ci ci loola. non pas labaj parce que labaj moom xam nga labaj mooy loo xam ne da nga ko def de façon volontaire wala loo xam da nga ko mettre en place un système pour éliminer nit ñi am na ay dysfonctionnements yoo xam noté nañ ko par rapport à notre cas par rapport au cas du docteur Abdelrahman Diouf, nous avons des candidats depuis presque trois ans, nous avons fait un excellent travail sur le terrain. Parrainage depuis presque, nous sommes à la 74e position, nous avons validé 30 000 parrains. Malgré que doublon est taille, nous avons que pour tous les candidats, nous avons dit nous avons une position favorable sur les 50 premiers, on allait passer d'office. Parce qu'on a plus de 14 000 doublons entre la 52e position et la 73e donc tay loolu voilà du labaaj dañu dafa am dysfonctionnement boo xam ne constaté nañ ko ci affaire yi mais nañ ñu corrigé waatal suñu parrainage contrôlé waat ko. c'est pas donc pas du même avis que ñiy wax ni mbir mi mbirum sélection la. non sélec par rapport à votre cas. non sélection am na ci parce que xam nga processus électoral dafa yàgg dañ dem dialogue national gars yi ñëw bi ñu waxtaanee si dialogue bi am na nu ñu ko defee d'une façon technique boo xam ne am na candidat yoo xam ne dañuy bokk d'office xam nga boo ñëwee ñu dem y' a 600 maires et 600 maires et présidents de conseils départementaux nga xam qu'il y' a une seule coalition un seul parti qui a 20 des des élus Bokk ils ont 120 maires et présidents de conseils départementaux nga ne leen les 600 maires dañ ko ci 20 des yi nga élus mais ñoom rek ñoo ko fi am amul beneen parti amul coalition qui a 120 maires et présidents de conseils départementaux ñom ñoko déposé biñ ñëwé ci député yi pourquoi waxuñu 7 du du nombre de députés parce que si waxone 7 pur day bok day duggal 11 députés mais dañ ko nat ci 13 ci 8 Il y nga xam day yeen 1 sax do leen dem. 1 dem effectivement même si ñu 0,5 du ñu dem sax injustice la parce que tay lu melni parrainage élu parrainage député mais da ko wara avant élection locale avant l'élection législative il précédé présidentielle bi ngi leen di laaj parrainage élu ak parrainage député parce que loolu injustice la munoo ñëw tey benn élection tey bi nga déterminer présidentielle bi da nga a préciser présidentielle bi di ñëw dañuy parrainage élu loolu mun na à un parti qui n'était pas intéressé par les élections locales de participer mais tay député amna na ñoo il ne ils ne sont pas intéressés par le poste de député amna na ñoo xam ne bëgguñ nekk député ils veulent pas être député. Hmm. mais ñooñu tay nga sanctionner l'en parce que ñu ci élection précédente bi ñu ci élection député yi que légui da nga leen di laaj nombre de député pour bokk ci présidentielle mais loolu bo leen amana bo leen ko waxon trois ans en avant il allait se préparer pour dem ci élection locale yi pour dem ci élection député yi mais tey boo gisee dialogue politique bi li mu jur mooy tey organiser wu nañ ba nga xam ne ñi nga xam ne am nañ treize députés huit pour cent jàll nañ ci élection yi et voilà loolu yëpp ay ay combine la yoo xam ne gars yi nañ ko yéen a demul aussi ah non demuñu te ñun de rëccu wuñ ko ah bu doon suba duñ demaat parce que même buñ demoon tey yan avantage lañ fay am amuñu fa benn avantage amuñu député amuñu maire